Assalamualaikum. maa ngi nuyu ku nekk santam. Nabi Vision. Eh, di baal wax ñëpp rek comme d'habitude di leen balaax ñaan Yalla Yalla defal nu jam si biir jàmm si biti Yalla sàmm Yalla am. Yalla mën nako Yalla nako Yalla defal defal ko may compléter rek. un l'actualité si actualité parce que ma defoon naa une vidéo di wax si affaire CEDEAO bi doo xoolee sommet bi à l'issue de ce sommet là la lune Donc, wax donc demander di ñaan le président Bassir Diomaye Faye faire une médiation entre ces trois états là Je dois waar le <coughs> pardon Nabi Vision président accepté la demande mais que wax rek ci parce que on a affaire à des <laughs> euh, à un système très très très très très puissant ce système là il est très puissant te mon changement systémique peut-être démarche vous voilà, voie que nous utiliser pour l'eau mën nek donc da ngay nek au sein d'abord déjà misibir donc novice la entre guillemets parce que nous les fondateur les pré-fondateurs de la au Sénégal C'est la bokk. Nabi Vision. donc nous avons joué le rôle pour mën médiation L'État, les pays de l'AES nous gagnent ici, biti lan pour nous poser la question xam li tax est-ce que daf une médiation autant autant. pour nous je ne pense pas Nous avons imposé def imposer c'est-à-dire que dañ avons ces pays là pour nous delluwaat sinon dina sanctions économiques ces sanctions là nous ne ci c'est les colons ce sont les Français qui étaient derrière ces sanctions là Nous na ba ñu commencé une guerre entre les peuples africains nous avons une guerre Macky Sall mi envoyé des troupes pour nous faire a guerre pour lenk pour l'Inde, pour bi. Vision. donc président nous avons une na nous avons CEDEAO dafa parce qu'on parle de l'intégration africaine donc il faut que nous nous xool Nous nous méngoo à la réalité qu'est-ce qu'on veut on veut être souverain nous ressource nu mun ko gérer nous développer notre cher continent l'Afrique parce que am ñu di wax si l'Afrique refusait là le développement c'est nous dans nous suñu nous la est-ce que piégé wuñu ko on sait jamais Moi, il faut mu dans la dal molo molo bu mu ko influencé bu mu def parce que pays yooyu dañoo subi day day day qui ah, sur le plan économique des ah, day sanctions, ils ont subi ça. Naby Vision. bu est est-ce que def une médiation est-ce que xool nañu lu bëri loolu am une ñan ñoo teg ñu nekk si CEDEAO CEDEAO nee na le conseil d'administration il y a des tubaab qui sont là-bas Les blancs les européens ñu ngi si système Les européens lu ñu bëgg ñoom yi défendre leurs intérêts Afrique nous avons lépp lépp on a tout en Afrique. mais ñun mënuñu nous gérer comme il faut comme un bon père de la famille mais nous avons une façon de nous faire. Nous avons une façon de nous faire. alors donc affaire yi non non. on va être souverain on def de telle sorte que nous suñu walu bop ñu damal idéologie bop suñu gis-gisu bop bo xamné ben ni donc na ci def nank na def na piège pour le Sénégal

mais là nous ko proposé ba mu place am chrome makin, mystère le logam ça veut dire que système baa ngi ñëwaat c'est une Ndiaye lan la commencé wax encore échange fi dépôt moom il a fait une manière intelligente foog na mooy mu gën a mus ñëpp donc OS OS ce système là ce système là Naby Vision moom ni ñuy combattre Moun nou nou kombat, moun nou nou yi kombat, il fok nyop degaj ou, nyam vizyon paraprol yi daf. Do khole si livrou bou son la diyen baki binda. Moun daf kebe, nyop pou nyon, do khole se seri yon manan baki, te moun ekwa Darou Moussi, il ete prezan. Eske moun nou am priz sur yon? wala mu influencé la ba nga mën a changer polo parce que ba muy metti gisoo kenn kenn kenn kenn ñëw wax si suñu sëriñ si boppam kii Mbàkke def na ay appel dem na fépp dem na Tiwaawan dem na lépp à ce que ñoom ñu agir si phénomène bii di am xam peut-être mën na nekk agir ou pas mais bu ñu dem léegi jusqu'à présent ku nekk ñëw di fëgg la porte pour am dara wala nu mëna am togal yo waxtan pour mëna changer le bari parce que système bi il est toujours là té ñun on ce système là. Nabi vi donc euh, ma ngi lay alerter di lancer appel à suñu président ak OS ñu bay ci xel baña am ben fay dañ ci bay xel parce que système bi mo nek depuis 1960 am ño xam ne bés bu ñu ci système bi rek dañuy changer la food la la la feuille de route da nga koy changé Macky Sall la yoonu bi la waxone dem ba ci bir il a complètement changé et j'espère j'espère bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien ce ne sera pas le cas cette fois-ci donc du fait que waxna lu djuk wala lo xamné da fay am ni muy déranger déggulu rek nga xam ne motuma kessela du fekkee am na jën nga si mbirum yàlla la wasalaam salaam salaam mission bi ñu dénk son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye kenant bi ñu xam ni ñépp moom lañ ci am mooy Naby Vision waa CEDEAO ñépp xam nañ ni ñuy doxalee jaaduwul ndax ñi nekk seen ginnaaw moo tax waaye bu ñu fàtte ni benn organisation la biir Afrique bu daan xàccandoo di dóorandoo te li leen toxoon a jóg mooy unité africaine mais mission boobu nga xam ni moom lañ jënkoon waa CEDEAO presque dañ ko fayir dañu fayir seen mission ñoom li des bareetul moo tax waa Sahel ci boppam décidé génn foofu pour bu mën a am seen liberté formé wu ñoom en boucle ci ñoom ñett xool nan la ñuy doxalee di xàccandoo di dóorandoo li nga xam ni moo taxoon jóg CEDEAO bu yàgg ñoom nag nee nañ comme gis gisatuñ seen bopp ci biir CEDEAO. Naby Vision. ndax doxalin bi ak ñi nekk seen ginnaaw moo tax ñoom ñu jël seen décision bopp moo tax nag waa CEDEAO wootee pour waxtaan xool nan lañuy def pour wax ak waa Sahel te ñëpp dégg waa Sahel seen position ak taxawaay bi ñu am ak seen nouvelle démarche bi nga xam ni adopté nañ ko pour ñu mën a waxtaan ak ñoom ci li leen convaincre ñu mën a duggaat bi CEDEAO ay ñag-ñag yu bare bare bare yu yombul te du yomb waaye bu ñu fàtte ni ça c'est un de deux ñom bañu ñu ci war je m'explique parce que ministre affaires étrangères bu Mali Ablaye Diop ci discours bi nga xam la yi passé té ñep gis ko dégg nañ ko mu ne ñom bañu ñu wax ni moom lañu d'accord té lolu aussi muy deug té dañ leen koy nangul à 100% nabi cent. ndax mënoo joxe bopp rocci làmmiñ c'est pas possible moo tax pour mission bi mën jall deug deug deug il faut président jël ay responsabilités waaye aussi wa Sahel baña xolé son excellence Bassirou Diomaye jahar fay ak wa ak Paul mi nga xamni mom la andal nga xamni mom moom réputation baaxul. waaye ñoom ñu bañ a xoolee son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye waa CEDEAO ñu xoole ko koo xam ni depuis ba mu ñëwee sortiem yi nga xam ne moom la njëkk a def demul France demul États-Unis demul fenn ci biir Afrique la doon dem te ñëw na Burkina Naby Vision ñëw na Mali ainsi de suite démarche am mooy man yéen laa Andal. yéen ay samay père africain dama bëgg ñu ànd ñun ñëpp unité ñun ñu bokk and liguey parce que takaliko baxul ndax xatiando dóorandoo mo geul comme yéen ni formé wo nek ñetti dekk ndax ñaka d'accord ak wa cdao organisation bo nga xamné ne laisse à désirer légui nak dañoo bëgg mu gën a yaatu seen ñett yooyu ngeen kuréel yooyu dañoo bëgg mu gën a yaatu mënoo leen a génn ba pare di bëgg ñu jëflante encore loolu il faut ñu xoolaat ko bu ko waa Sahel comprendre xam ni démarche président du du mission bu xam ni waa CEDEAO ñoo ko yónni rek pour mu ñëw dox seen diggante non nañ ko xoolee. Nabi Vision. benn dëkk boo xam ne daa bokk biir CEDEAO génn fa te mu gëm ni waxtaan moo gën loo gis malentendu gis table négociation lay la amee solo lool ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci mission bii nga xam ne lañ ko assigné mu nekk mission bu doy bu sensible bu délicat waaye wóolu bi nga xam ni man sama xel wóolu naa ko ak sama xel dal ci mooy Afrique en progrès boobu mu doon wax Afrique en progrès te njëkkee ci dëkk Afrique yi ci bi muy njëkk génn dem Mauritanie ak Guinée ainsi de suite loolu rek war naa tax ñoom ñu bañ koo xoolee benn bët Nabi Vision. Lolo, rek moo tax may wax son excellence crainte bi nga famille. ne am nañ mission bi bañ a aboutir maanaam mu mu échoué Yal terre, yàlla tere tere di Ni, ñu ñaan mission bi, Mon nek, une mission bo, xam falay, wa, lay di doxee ak de moi mu am début de solution début de de, de solution ndax loo gis nag ndànk-ndànk la ba keroog nga yegg ci les résultats définitifs maintenant il faut être optimiste dans la vie il ne faut pas être pessimiste président je ne bu li koy xaar ak fa mu jëm. Naby Vision. ak ban bët lañ ko nar a xoolee après ndax boo xoolee ci réseau yi li fi jot a am yëpp ak bu Ibrahima Boubacar Keita li mu wax ak li mu gëm ak ñoom ñoom ñetti ñoom il faut président def ndànk xoolaat bu baax ñi muy jëflanteel li muy wax ak ñoom ainsi Lolo, il faut président de sindang ndànk bu baax mission bi commencement ñepp koy waye damay ragal mu am nar ko gis assumer responsabilités. Nabi boo jógee pour def dara ak sa yéene bu rafet yàlla moo koy mottali su baaxee lu baax nga ci jublu woon kon dañ koy saluer bu fekkee ne nag malentendu desee am ñu xam ni malentendu la et ça s'arrête là et man foofu rekk laay waxee wax yi nag xaw naa jaxasoo waaye ay junju la ci biir ak benn taxawaay bu waa Sahel am ak waa CEDEAO te ñi nekk seen ginnaaw intéret bi ñu am xam nañ ko ñu kenn mënuñoo jaxaseeg suñuy père africain du France du États-Unis du kenn Sénégal yàlla def na stabilité bi mu am nii incha allah mooy continuer ba keroog ay génération yu génération ñëw yeggale ko ndax foofu lañ teg suñu tànk te duñu nangu kenn yàqal ñu ko moo tax nag son excellence ñi ngi lay ñaanal bu baax une bonne réussite Naby Vision dans ta